mbaa takkusaan la de. Ah. làmb la de ñaari xale la. waaw ah, dañoo war a bëre ba tàkk bay laal fii liggéey. ba suñ Tuuba yii kay la daan def bu mu ko bàyyi rek bu ko bàyyiwul rek day neex. agressé booy di leen duma dóor la ba nga réer jaxasoo ak yow daan ah loolu bu mu ko bàyyi rek loolu laa bëgg mu indi bu ko indee nañu wane ne ay xale lañ ñaar ñëpp. agressé ba sëñ Touba def jom def fu la. kan la man moom garaawul amul problème. Hmm. jaas ak jaas sax du ma dellu ginnaaw waxuma laa loxo loxo. am xam naa ne borom jom la lu ko bëti may rek fit bi du ko ko ko kan moom xam na loolu mu may dégg moom laa yor moom laa amal contrat kay moom laa yor waxuma kenn. sax bi yow la mais garaaw amul moom moo ko waral. non kese la ndax bu ma moom ba pare damay bëreeg yeneen champion waaw. Babacar man relève laa biir Pikine bu war a waaw boo xam ne xam nga bokk ci xale yi nga xam ni waa Pikine lañ leen a yaakaar waaw tey dañ dañ ma ko woon ba ma gis ko. nekk naa fi si ay torof torof ba def daanu daanu ma ñëw Iba Mar mii di ñu tëj stade bi comprendre nga kon man dafa am cër bu ma waa Pikine jox te dama am bor bu ma leen war a xam ma leen war a fay wan leen ni leen yaakaar bi ngeen am ci man guddi yi sama njort romb na foofu sax ba suñ Tuubaa waaw Gamou Gueye la suma adversaire la suma moroom la rawuma ko sutuma ko ci làmb mais dañoo war a jëflante ba pare ma doog a bëre xamal ñi nga xam ne ñoom laa war a bëreel waaw parce man làmb su fekkee dëgg rek a neex war naa bëre ak ñëpp waaw. ñëpp ñëpp ñëpp. mais obstacle mooy waaw gàmmu gi mooy coow li parce que moom laa war a jëflante le 15. ngay mais gàmmu gi du Thiès de. Hmm? du Thiès de. waaw loolu man bëri naa taay bu ne ah waaw boo buggee dégg dëgg man soq moytuwuma dara ci gàmm gi déedéet ndax sa moromu góor yàlla moom boo demee bay moytu ci moom dara vaut mieux nga def recul te xam ne yow mënoo daan champion yi si kaw man damaa war a bëreeg champion yi si kaw Babacar ma waxaat la ko ngay dégg dama ñu leen woon bi ma jugee ci kalaaf bi nga ma jël yow interview ma ne la fii ak ñaari at xale yi téye làmb bu ma ci nekkul pay deux lay nekk te gëm-gëm la bu nekk ci man te waxantuwu ma ci maa ngi sama ruq jàpp sama ñaambur di liggéey te xam ne liggéeyee koy maye leneen maye ko lu mu liggéey waaw mais gëm-gëm la bu nekk ci man te incha allah dinaa ko confirmer promoteur bi am loolu boo ma ko laajee dinaa ci sawar a wax ndax promoteur bi ndeysaan nit ku baax la xam nga man ma mosuma may dara maanaam mosuñoo sax gisante nii bët ak bët bu dul làmb estat ma séen ko comprendre nga ba muy tëgg sama làmb tëgg na sama làmb barki maam Seera Fall bañ dawal ay weeri weer weer te xaw ma ko mosuma ko gis comprendre nga mais nit ku jar a jàppale la parce que salaamaaleykum nga dugg si xamagoo fooy teg sa tànk jël say million def ko ci làmb kon tey dañ ko war a jàppale muy Thiam Production xam nga man de man Sokh bis bii nii su ma ko bëreelee ba pare du ko rëccu man maa ko wax loolu. ci mbooloo. ci mbooloo biye yeeg lépp laa la wax barki Serigne Saliou Mbacke xaa ngi nii toog mooy borom seeraas comprendre nga ma grand frère la bu combat bi taxawee ba léegi nelawul gëmmul fu yaakaar ni tey war nañ fu mën a dugg pour am ndam rek barki Serigne Saliou mu ngi koy def tey lépp lu mu xam ne tey laaj na financement ci combat bi barki Salatul Fatiha mu ngi koy def ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ni fi mu toll nii dañoo pare minu minu borom Grand Yoff kooku amul lu mu dajul ci combat te incha allah rabbi bu neexee yàlla ak yonent bi moom rek rek rek rek rek. dig na ma dix gu ticket te gëm naa ne dina ko jënd arène nationale bi déggoo li ma la ku fa ñëw mu saf làmb Omar Ndoye sama boy bi nekk Kaaba rek nii nii nii rek moom jëndagum na ñaari bolo gu ticket te waxaguñ lu ci jëm monsieur le maire Isaaxa Diop ñëwagul Pape Gorgui Ndong ñëwagul Thierno Ndomba ñëwagul comprendre nga Rama Maki ñëwagul tey bu ñuy lim fii la ñuy fanaan comprendre nga combat bi nii gars yi si naan seen i doom yu fuur moo bari. Hmm. Mortala la président ASC Pikine président supporter yi barki Serigne Touba mu ngi ci guddi bëccëg suba ngoon pour luy rafetal mobilisation bi. ak Babacar Diakhaté borom Kaffrine yaa ngi dégg. comprendre nga Basirou Gueye suñu grand borom Thiès moom am lu mu deful combat bi nii moo ko teree lekk tere ko naan président ASC Pikine nag kooku waxaale ko sax ak Ibou président jàmbaar kooku sama xarit la sama doomu nday la sama longoo la bi combat bi taxawee ba léegi mayu ma jàmm mayu ma salaam comprendre nga gars yi ñu ngi si te billaahi wallaahi su ma defee open press boo leen ñëwee foofu noonu ci ngeen di xam ni soq piki na nekk ci ginnaawam nekkatul soq bu doon dem individuellement waaw man musuma baawar musuma bëre lamb bu géey sama lamb yëpp yaa ngi stade une dañuy tëj stade bi ni kenn dootul dugg sama premier combat laa la wax sama premier grand ba nii yàlla tey ni su ma bëree làmb boo xam ne une heure tëjuñu stade bi manga bi ma ko bërelee maag ndigal ba pare père manga daf ma woo moom mayaat ma xaalis comprendre nga kon man xale laa boo xam ne te boobu dama doon doogu débuté rawatina nag ma dem ba waa Pikine yëpp am ci man yaakaar di séentu ci man roi des arènes wala tey ci mbër yu téye làmbu Pikine comprendre nga kon su ma bëree su ma bëree arène nationale yéen di ngeen xam ne sooxu mii nii fii mu nekk nii sax du palaasam ci làmb waaw. non Eumeu Sène ak Ama Baldé ak Boy Niang dinañ ñëw loolu wax ju yàqu la ndax ñooñu sumay frère lañ te dama topp ci seen ginnaaw jéemuma cee jéggi kenn paa mais tey am na foo xam ne bu ñu fa tolloo ñoom bu demee ba tey jox ma lengay man damay continuer au sommet dem man loolu laa xaar si ñoom de pour ñu dem ba yegg fi ñu war a yegg jël li des jox ma ko ni ma soo ko yeggalee comprendre nga open press boobu moom du ma ci woo benn mbëru Pikine ndax xam naa ni tey ñoom ñëpp ku ci nekk am na lu ma la jox loo xam ni loo moom la te xam naa ne bu ma xewlee dinañ ma ko delloo ñoom ci seen bopp comprendre nga waa Gambie laay woo tey nga xam ne Gambie dama fa am lu nekk bindi nañu nii borom Serekunda xam tey moom day bëri ci journée bi le 15 te xam nga moom buy bëri rek barki maam Serafal ay ñetti bis lay jóge Gambie kon man woowatuma waa Gambie ndax xam naa ne dinañ teew waa Gunaas laay woo sama mafia Gunaas bi ñoom guy gi booy maa ngi leen di woo ñoom ñëpp di woo waa ñetti mbaar yi xam nga ñoom sëñ Modou ñoom soxu numéro 2. di woo waa ginnaaw raay yi nga xam ne nag fa laa juddoo yaroo fa màggee fa ba ni ma tool nii comprendre nga di leen woo ñoom ñëpp di leen wax ni combat bi combat waa ginnaaw raay la te dafa am benn affaire bàcc seeraas daf ma woo ba ma ñëw ni ma soq ma ne ko mun a yëkkati capitaine ginnaaw bi jox ma ko ni ma yeggali relève bi bàcc seeraas moo ba ma ñëw ni ma soq ma ne ko naa mun a ma xale nga te li ñuy séentu ci làmbu ginnaaw raay suba gëm naa ne mun nga ko. jëlal capitaine bi nga doxal man maa la ko jox Bathie Seras moo ma jox relève boobu te tey sama combat lu nekk la si daj Bathie Seras maa ngi koy sant di ko gërëm comprendre di ñaanal Ama Baldé sama mbër combat bii mu jëm nii yàlla yeggali ko si jàmm te mu am ci ndam bu sedd guy di ñaanal Eumeu seen combat bii mu koy wax nii bu dee li gën ci moom la yàlla na taxaw di ñaanal Boy Niang di leen ñaanal ñoom ñëpp di ñaanal mbëru Pikine yëpp comprendre nga di ñaanal waa xam sa cosaan nag waa écurie xam sa cosaan di wax suñu père Malick Ñing mention spéciale ndax suñu papa la sonn na si ñun trop ba ñuy doog a débuté da daan jox sax promoteur xaalis pour mu tëggal ñu combat bañ dem tey ba xam ñu ba mun ñoo tëggal combat te du ko yëg ñu ngi koy ziar di ko ñaanal gudd fan di ñaanal moo suma entraîneur maa ngi koy ñaanal bu baax barki alxuraani karim di ñaanal Jacob Balde sama entraîneur waaw di ñaanal ñàngoor gi tamit sama entraîneur ndax Sokh dafa bëri entraîneur ndax tey ñu bëri dañoo yéene Sokh pour mu yegg au li ñu wax yàlla na yàlla yeggali seen yéene di ñaanal ñoom Moussa Ndiaye di ñaanal Jibi Ama mi nga xam ne mooy suma rak ñu àndoon yàlla dogal mu am ay gaañu gaañu ba tëdd yàlla na suñu borom fëgg boppam moom mi ko tëral xam nga di ñaan yàlla na jàmm yàgg Sénégal di ñaanal sumay goro ku ci mel ni Ibrahima Diouf Nabou Diouf Maye juuf xam nga Omar Diouf Ahmed Diouf Pape Diouf Vieux Diouf ñoom ñëpp maa leen di ñaanal di ñaanal suma doom Fat Sarr di ñaanal suma soxna Jige Diouf yàlla def ko muy waaw gudd fan ba jéggi dayo waaw di ñaanal jibi joolaa sama nijaay maa ngi koy ñaanal gudd fan ak wér ndax sonn na ci man trop di ñaanal suma yaay bi ma jur di ñaanal sumay rak ñoom paa bi ñoom Mariane asu awa comprendre nga yaana xam nga aana ngulu ñoom ñëpp maa leen di ñaanal gudd fan ñu nekk ay mag yoo xam ne suba dinañ mën a jël relève bi xam nga di ñaanal ñëpp jàmm di wax li sama champion suma mag suma grand frère yal na la yàlla taxawu defal la ndam bu kawe sa njort barki alxuraanu karim di ñaanal baabooy bu xam sa cosaan yàlla may ko ndam ay biraan ñoom ñëpp maa leen di ñaanal xam nga comprendre nga di wax ni gars yi am na lu ñuy réclamer nee nañ dañoo lu mu séntu bi ci man ndax léegi damay daan di bàyyi séntu bi incha allah rabi la quinze mars dinaa daan gàmmu gay jël bu rëy ba pare toog ci tànk yi yëndu may ko supporter yëpp <laughs> loolu dara di leen bëggee nag Babacar yéen a maa leen di bëggee bu baax waa Leewtoo maa leen di bëggee di leen ñaanal di wax ne Babacar bokk na barki naa Mouhamed ci le meilleurs communicateur parce que tey nit ku xam làmb la tey bu décortiquer làmb boo xefee yàlla du ko juumloo parce que Serigne Saliou Mbacke du lim taxaw moo tax du dara mais tey mention spéciale di leen ñaanal gudd fan ak wér gu yaram ak yokkute waa di wax saal bii ñu nekk nii tamit saal bu bees la. ni ko ñëpp ràññee xam nga di ñëw di entraîner si ndax salle bu baax la boo xoolee salle bi tey xam ne fii lépp ñu fi dara manqué wu fi waaw te fii la nekk ci biir dëkk bi nii mu ngi nekk fii nii euh, en face dal jaam bi si Aline Sow bi fa la nekkee ñu ngi wax gaa yëpp nañ ñëw yaa ma gën a xam ah Sapo ngaa mu koy waajalal nag <laughs> waajalal de <laughs> dina neex dina yomb bu yomb de <laughs> champion nag mais waajalal bu baax te xam ni la 15 warul yomb.